thank you ami téléspectateur mbokki Tirfis yi asalaamaaleykum am nañu mbégte jàkkaarloo ak yéen waaye dafa am loo xam ne moom moo ñu fi indi ndax ale boo gis am na retour li xew nag mooy Qatar Grand Prix Arc de Triomphe j'ai l'honneur et le nga xam ne monsieur Khalifa Gueye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mouhamed Mbaye di la ziar euh, di bég ci invitation bi voilà. maa ngi am tey recevoir la ci plateau Lonase mais lan moo la fi indi ndax dañuy dégg Qatar Grand Prix Arc de Triomphe. waaw Qatar Grand Prix Arc de Triomphe événement bu ngand bu MAC la ki se tient annuellement cette fois-ci touche bi ci nekk bu exceptionnel bi noonu def mooy dañu ci def euh, lu mel ni promotion bu mag bu ñuy jël treize personnes fay leen billet aller-retour et frais de séjour jël ci trois meilleurs vendeurs déjà du point de vue du chiffre d'affaires et dix parieurs te ni leen choisir ci réseau physique bi PMU ALR PLR yaakaar naa ne loolu neexate na xanaa laaj la naka lañ ciy bokkee comment participer comment jouer c'est très simple Mohamed Mbaye da ngay nekk déjà un résident ici au Sénégal et être âgé de 18 ans au minimum et aller avec une mise de 5000 francs nga jouer au PMI mooy ALR ci suñu kiosque yi magasin yi wala PLR ci suñu salle PLR yi boo demee ci lonase.fr bi mën nga miser à part de 5000 francs boo ko defee kii joué bu joué 5000 dinañ ko jox benn fiche yi nga xam te suñu ndaw yi nekk ci point de vente dañ koy téye mu remplir turam santam numéro téléphone am et les 16 clés du numéro du ticket bu ko defee jox ko kooku kooku indil ñu ko 24 heures après Lonase dina ko yónnee message xamal ko ne ko inscription validé nañ ko bu fekkente ne dafa scanné QR code bi nag daf koy renvoyé directement suñu plateforme muy remplir champ obligatoire yi à savoir li ma xoon léegi turam santam numéro téléphone am et les 16 clés du ticket. moom it dina jot bataaxal bu koy xamal ne ko validé nañ inscription noonu mbokk yi mi ngi noonu yaakaar naa ni leer na monsieur Guèye maa ngi lay remercier di la jaajëfal di la wax euh, ñu tàggatoo rek sa mot de la waaw jërëjëf moo de la fin xanaa di wax suñu mbokk parieurs yëpp vraiment nañu daw gaaw ci point de vente Lonase mhm. pour jéem a jouer bu ko defee ñu bokk en tout cas am chance bokk ci tirage bi mbokk yi mi ngi noonu yaakaar naa ni euh, heure bu ñu fi taxawee rek ñëw ci ay baax baaxu Lonase et puis rendez-vous ah mbokk turfi si ni ma ko faral di waxee amis téléspectateurs le premier octobre foofu ca hippodrome bu Paris Longchamp on se retrouve